papa Serigne eh ñaar nañ ko de dañ ma doon fekk micro bi damaa bëggoon ñëpp ñu am nañ ko mu nekk ci collège bi ma jox tàkk seen bopp et ñu ngi nuyu kenn ku ci nekk turam ak santam du nuyu suñu kilifa muy Seydina Ousmane moom laa ko tuddee Seydina Ousmane Tonga tàkk leen ko donc aujourd'hui madame la ministre tey daal affaire bi xam nu mu ngi modulé. na comme si da ngay defoon grand théâtre rek tey moom dina mel ni gàmm waaw ah, dina mel ni gàmm tey. mais waa ji jox ko addee rek la bëgg da ko bëgg a jox addee rek mu topp waa ji bañ a ko waa ji Kaolack lay gàmm mu dem Kaolack mais waa ji tàggatoo ko na fi waa Kaolack tàggatoo ko tey rek. tey rek tey fii saa day nooy nit wax ji yi teg nañ fii kaar nañ lamp bi mais comme waa ji star la waa ji ay deux heures deux heures kaar lay génn du teel a mu demee ba kaar jot ñu ne ko ah sëñ bi heure kaar jot na tànk bi fees na lamp yi leer na si gis na léegi waa ji léegi génn yeesal gàmm jàpp wàcc ba génn ci tànk bi fi mu toog di jàpp la ko waa ji topp pour jox ko addi fekk ni ko sëñ topp naa la fu ne gàmm boo maa ko yor sama xaalis bëgg la ko jox mais aw ma occasion ak jot ci yow te avant ngay génn ci gàmm bi cinq cent mille maa ko bàttale ci gàmm xam nga déedéet gars yi dem ba fuuy waa ji jël cinq cent mille pour pour jox mille francs ko ci poos continuer jàpp waa ji jaxal ba pare jëriñ ci tànk bi ndax jëriñ bi lay moom naan maa ko wax affaire boobu foo dugg nag mu mel ni si yàlla commencé naa ni mbokk yi tànk bi ñu teg nga xam ngeen tey ci la jàmm ñu ne ko séeréer sëñ bi xamuñu ko de ngeen jël dëgg yàlla na ko tuddee woon mel ni ku nekk gàmm ku nekk yàlla na ko tuddee woon. tey jàpp ci dana yàlla jàmm gaa yi ku dugg sëñ bi mu ne la dana yàlla ñu ne ah ragal la ah, nekk nit gaa teg ñu ko sëñ bi ko de yow daal boo ñu fu ragal yàlla nekk ci nit duñ mu dóoree la ko xelam dem ci cinq cent mille bi ñu ko joxoon ko ci poos mu naan ñu ko ragal laa ci xol yi lamb poos moom daal centime cinq cent mille ma ngay gaa yi sëñ bi yaa ngi fi bëgg yàlla ku ne damay soog a démarré gàmm bi déglu leen ma rek gaa yi ko ah mën naa def laa ko woon fii ñëw fii la am ko si dëgg dara ragal yàlla ba tey gaa yi ko ah mën naa def laa ko woon fii ba tey ñëw fii def dara dara ragal yàlla man baa bàyyi ko loolu jàpp yàlla dama ko la seen sàmm tàcce ay tàcce leen ko bu baax a baax Papa Serigne salaamaaleykum <laughs> notre département Aïssat Aïssat gàtt na bagage am nee na dafay dem man dama sonn def naa lu ne dépense dama laaj am dépense bu bugg bagage am dem jooni noonu soo amee deux mille francs deux mille rek boo ko amee man yow laa jublu waaw kay yow da ngaa neex yow da ngaa neex yow sa adduna da nga ko war a defar ko organiser wu yow ñaata dépense naa yow cinq dépense def naa la. waaw dama dama la daan am. non dama la daan def naa la cinq dépense. dama la cinq yoo xam ne maa ngi ko lebal. man daan naa la boo ma kay laajal nga ne bii six. waaw daan naa la jox quatre yow tamit. doon nga ma jox. daan naa la jox dépense yow nii. doon nga ma jox. waaw mais yow loo ma jox man jox naa la mais man dama laa jox yow joxoo ma yow. waaw dafa tegaloo rek ay sata. ay sata nag daa war a yàlla. ah war na yàlla kay. ndax ay sata. bi la yàlla dimbalee nga man mën a defal ko. kon soo toogee ñàkk dépense moo njëkk am frigo baax ci dëkk bi. ah waaw waaw. xam loolu yomb. waaw dinaa loolu yomb. la xamal. te wax naa ko nee naa demal im sek bay wax naa bay bu ko dee mu teg tàkkam ci im sek. dana xamal naa ah. mi pël yi am organisation. waaw séeréer yi am organisation. Mhm. ak bambara yëpp nekk im sek dafa ñu dañoo bëgg. dañoo bëgg seen biir dox xam nga ay mel ko fekk ci biir su nekk yaa jaay fee ci bëggee il seet nag ñi la ñi la def réew mi ñi la def réew mi ci tawat bi wax naa de bañ na de moom lu faam faam waaw lu ko lu ko teree bokk ci organisation faam yi wax naa bay bukkutee wax naa bay bukkutee ñii dañuy puus faam yi ñu dem nga foog ni fa la ñu yem ñu puus faam yi ñu dem nga foog ni fa la ñu yem ñu puus enfant yi ñu dem ah. ñu puus leen kam maanaam maa leen kam ah maa leen kam rek yaa xam dara ah ku ñëw pour naan waaw man kon naan te pire nga naan la yow yow ñëw doon kam de IMSEC laa xam doo ko xam xam naa ni IMSEC mu ngi jàppale carré ndaw te ci ñooñu la gën a aay nag ak jigéen mooy jeune yi da ngay indi compte trois mille francs yoo xam nga loolu nekk mooy yow doo doo mu pare te quoi droit de adhésion ah wala la ko lebal afiya ci daan télé bi tas leen ci waay ci xam naa def daa daa xëy def naa da nga xamal ne ne euh, jigéen waaw danga jàngal ci boppam ni ngay yoree kaalis ni ngay amee kaalis ni ngay lebee kaalis ni ngay dencee kaalis ñoom loolu la jàngal yëpp sek moo ci aay maanaam dox da pare ni la fekkal fi sa tànk ñii ngi liggéey ba mën a am dara doo yàq lépp génnoo ba pare ëpp. yow ñoom dañ lay faral ci loolu. lépp lay def fu mu nekk ma wax la benn affaire. waaw maa ngi wakaale pour jaay suñu nag yi damay wuti tool. damaa bëgg a béy. waaw damay béy kay. jëm sekk ma ko fi nag damay béy. kon da ngay bàyyi da ngay bàyyi ci jàppale ka pour yow kan ak ko ba IMSEC. ah mbéy dina naag bu soobee yàlla Sénégal dina doon jëm kanam de. ah IMSEC rek. ah. waaw kon yow nag yow. Hmm. bu ma la lebal dépense. ah ah parce que yii yëpp mënoo ko xam ba pare di ñàkk dépense yow boo ñàkkee dépense yow la neex man damaa foogoon sa bopp dana ñëw ci léegi nag. Mhm. leneen fu yow heure bi ñu njëkk a def mooy fii nga ma fekk ci spectacle ma yow da nga waroon bëgg nga xaar. ndax la ndax fii da ngay mën a fecc wala nga mën a maye wala nga mën a taasu pour nga mën a ñëw fii. waaye yow kan ak yi ma ànd ak yow yëpp kan moom man jëwri pour la man de maa ngi waaw ma def ministre xam naa ne waaw jiwul kon fan la xaw faal man maa jiwul man maa yaa la jiwul man maa jiwul daal man a fay man a man a tax yow lii may def fii boo ci mënoon dara fu ma jëm damay ànd ak yow. kam di yéen wolof da ngeen foog di géwee ci yéen rek la dem waaw madame la ministre Boubacar yaa ngi lamb taay ma toj foofu léegi yow tax yaa ngi nii maa ngi nii public baa ngi nii problème dépense moom boobu am ndax man bis bu nekk damay am ay programme engagement bu dee mën nga dara ci tax fu ma jëm yóbbu la jël nga moom dépense dootu mais nag ci ay base mais daal yóbbu. rek nga wax da ngay mën a way mën a taas te fii laa leen diglu ñi gars yi diglu su fekkee ne auditionné naa la nga jàng fu ma dem su fekkee baaxoo dama lay dàq. parce que leen at mi naa. tàggu leen ko. am jëriñ sa borom sabari am ñi ngi ko ñi ngi lii. booy gis nga fu kenn jàpp dafa yomb dégg nga. Fane euh, Fane eh, Fane yaa ngi déglu loolu. yaa ngi jafewul. jafewul. dé da ngeen di am dégg nag. dégg dégg leen ko. tukkat bi ci kaw kaw jaamu laas bi ci yegg si man jaw jaw ko man jaw jaw tey nga tam ne temps bi euh, pour la sa bopp. réewuma foofu bu ma paree dañuy continuer waaye bi yemul foofu. loolu da nga bàyyi ko jóge ah. daan jàpp keneen maire parti ko gaay jël ah fii tey nag mooy billaay fii tey nag mooy yéen eh, ñoo ñu commencé du dégg li ma wax yow nga dëgg la fuy balaa li mu la wax kay yow moo dégg ko li mu wax waxal ah. tukar bi ci koom-koom jaaraama naa di ci yegg si fan ku ñam jëm ko fan ku ñam jëm di saan loolu la wax ah, loolu la léegi bu bokkee un deux trois rek ñu def soo dee un deux trois rek ñu def un deux trois rek ñu def jeex na ah, bismillahi rahmaani rahim un deux trois

un deux trois ñu dem. un deux trois ñu dem. un deux trois. du ko ñu continué. ah dégg nga. dañu continué. boole bi jóge ndaw. jaajëfal daan daan daan bu teew daan daan daan lan moo keew daan wàcc ci sama sa kanam dafa xaw a kañe kañewee sa kanam moo xaw a kañe kañewee lan la waaw dégg loolu ba xam lu wax rek loo xew daal daan lan accident accident daan Dame. jaay pavillon bi Ablaye daan taxaw daan taxaw daan daan taxaw Ablaye tam ñu la wax de waaw su ma ne yëpp nga jëm tan ay ko do da sa da fees del no wax ko ma xam lan moo xew kenn loolu daal ñëw na ko ak ko leneen ay waay am laay amul dëkk waay dama wax ak dama Merci beaucoup. Subhanallah, Ablaye Ablaye Ablaye Ablaye yu fekk un million deux cent mille neuf cent soixante-sept francs nga ci jooy am na jël daa ko jëlee ci daa ko jëlee man trente ans jëlee man mën ngaa jëlee ba tam trente ans jëlee mën ngeen jëlee xar laa moo dee waaw mën ngeen jëlee su ma ñëwee kër ga yeneen at def dama koy génn kër dama koy génn kër bu ndaw yëpp laay génn bu ndaw bu mag basah-basah. Come on, come on.